yonent bi tàmbalee jooy fas yéene dajal yàlla na ko déedéet inna a'taynaaka al-kawsar li ma la jox moo ëpp li nga ñàkk tey sëriñ yonent bi yàlla ne ko li ma jox moo li nga ñàkk tey inna a'taynaaka al-kawsar fa salli li rabbika wanhar demul julli ji te bàyyi fi dij bi demul te bàyyi fi dij عليه الصلاة والسلام دادي أم كارن تام من بعد طائن ولا من كما سند دي دفال بابام استعش دي خلال جي أدنش بابا مكة دفع أم رغر ولا دفع أم أي تاسو أم ميزيك أم أي تاخان يو بري تي بنتي ما تمام نوبم بي دفع وراء أم أي أنتي أنتي caaxaan anti ndagar wale ndax inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula yowmal xiyaamati dañ lay laaj li nga déggoon lu tax nga dégg ko bi nga ko déggee lu tax séggoo ko li nga xool lu tax nga xool ko bi nga ko xoolee lu tax séggoo ko kullu ulaika kana anhu masula su guddee rek mu génn fii dem ba jam ñaajo mu yëg ca montagne bu ko wóoree ne ñépp tëdd nañ mu tër si ndax ba ñu déggee sabaram looloo taxoon maam Cheikh Al Hadj Malick sañ ci jagsaaw looloo taxoon Xaaji Abdul Aziz radiyallaahu anhu Daar al Habibi sañ ci fii ñuy wax Aynu Maadi moo tax Serigne Siit moom tuba Touba sañ sanc daaru salaam sanc yooyee tabarkalla laka daaru salaami rabbi wa tuuba li yakun rabbi bi ma saauduni maasikan bilkitaabi maska dariri bi yadi alxaariji albashir almuayini waaw sanc daaru daaru daaru salaam nag ñi sanc san sanc yonent bi noonu doon def ba benn bis nag mu ñëw ci xunti ma am lu fa fet def jëmmi nit rëy am kàttan naqari baat te ñàng ñu ko joxora xam naa gën na ñàng loolu sax maa bëgg compandoo rek tafsir mu ne ko iqra na naa mënumaa toppandoo baatu malaaka nag waaye daal ñàng na ne iqra ne ko pénc mii ngay daw ndeysaan ci mii ngay daw ak yii fi xew ndagara wala yii lay naqari ak taas yi col gu baaxul jii la naqari defin yu baaxul yii doxalin yii relation yu yàqu yii wax lu dul dëgg jëlee fi jaambur moom nga bëgg a defar bul jóge ci dëkk ba ñëw ci xunti mi toog loolu du ko defar xam nga la koy defar iqra jàngal ba pare nga dem defari ko allahu akbar jàngal iqra bismi rabbika lasi khalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram allasi allama bil xalam allama al insana ma lam yaalam mu del ci kër gi daal ne xadija zammiluni Thank you.

fa say sëy bay doxee tas wala mu dox fi yàqu wala mu rëng na ngi jabar jëkkër ji ne ko maa tey coow la tam di dëgg la xaddi ji deful noonu defutug mbàjj sàng ko ndànk dem tàngali reer sunu borom ne ko yaa ayyul muzammil qumil layla jàngi sàngu naa mu ne déedéet xumil layla jógal nga naafi moo tax la ko ba ko malaaka ma opéré yëpp woon ci jikko yi baaxut naafila koy dindi ci ñun malaaka mi amul jotuk ñëw cees ku ne mu opéré la dem ñibbi xajul ñun ñëpp ci hôpital wax may hôpitaux yi sax la hôpital kon li nu li nu koy defal mooy leçon bu mu jox yonent bi nu jël leçon ba topp ca mooy tax ñu opéré wu ñun mooy xumil lay la danga gaaw a mer xummi lay la dangaa siis xummi lay la danga rëy xummi lay la dangaa yaafus bëri nelaw xummi lay la dangaa nay xummi lay la dangaa bëri tiitar xummi lay la xummi lay la booy naa fi la léegi tey la la naqar say jikko dañ munoo bàyyi léttoo mees xumi lay la munoo bàyyi tatouage xumi lay la munoo bàyyi dem ba ca marché ba nga nga tàllal sa loxo góor gudul sa jëkkër ne ko fuddan ma xumi la munoo bàyyi kiris koros xumi lay la xumi lay la de naafila guddi mooy def loolu ci nit mooy defaraat nit ba nga xëy yëg ne nit nga su ko defee sa bakkan jóge ci nafsul amaara bi suu jóge ci lawaama dem ci ngir ci mutmainna irji ila rabbika raadiyatan mardiya كربا يا يل مزمل واتشي نك بمخي ورا سانغ نك بفي باسكو كوم دا فا فناني نافي لا فناني سون لغ نكو سانغ بفي سونو بروم ملاك مي دلول يا ايها المدثر قم فانصر دون دون دون نلو غودي دون نلو بجيت خمي الليلة قم فانصر موتاخ ديغنت نياري خم يوي نوبل ابو فيه كرنا لي في تملي سنبرم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم دكتور بنيونا لقد جاءكم رسول دكتور بنيونا ليس هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول docteur bi ñëw na min anfusikum te bokk ñi gën ci yéen li tax mu ñëw azizun alayhi ma anittum li leen dala ko métti li leen dala ko métti jikko yu baaxul yéeg pénc mu yàq ko métti bi mu tàmbalee liggéey nag yàlla boole ko ñeent ñeent ña ñeent wala bokk ñeent ña woo ñeent ñu woo ñeent ñuy wootante ba nekk nombre bu baree baree baree bari abu bakrin omar ibnul xataab usmaan bun affan seydna ali <laughs> sama turandoo Maodo dafay koy waxkat sama turandoo seydna ali ñoom ñeent ñooñu ginnaaw mom ñoo gën ci nit ñi ma tan ci kenn rek wax ci ñaari baat jox abdurrahman mële mu aw ma maa ngi lay ziaré bu baax baax yak shérif di la ndokkeel ci sa guddi goge kéro ba nga xébé ñun ñëpp xam ma la ko wax nekk ci télé bu mu yag rek mu xam nun ñi nekk suñu kër nun ñëpp ñoo xam <laughs> Abubakar Sadiq la yonent bi amoon muy numéro un ci moom magi ko trois ans képp ñetti at la ko yonent bi mage mu nekk commerçant bu bari xaalis waaye bàyyi at ya def yonent bi kilifa def ko sëriñ bëgg ko nag lool lool ba bëgg nga jéggi dayoo niiru ko nag parce que saxaaba mooy ku am sab sëriñ bëgg koo niiru saxaaba mooy ku am sab sëriñ bëgg koo niiru képp ku am sab sëriñ da nga koy jéem a niru fexe nu mu def nga def ko gis nga bu ñu àndee dem a dem aéroport nu war a tukki ma ànd ak yow ma am passeport amoo doo dem ma am visa amoo doo dem ma am pass amoo doo dem fexeel ba su ma amee visa na nga ko am ma am passeport nga am ko ma dëgg bii nga dagg soo bëggee ñu bokk benn classe it su ma dëggee première classe dagg ko nga toog ma toog. Mm-hmm. saxaaba loolu lay teg tekki mooy ki nga nekkal muy sab sëriñ da nga koy jéem a niiw ba mu la mën ca jàkk ja ba mu la mën ca ràkka ya ba mu la mën ci lenn aw bëkk sa jox noonu la meloon ci benn taxawaay bu ma saf la ndeysaan li ma koy wax ni mu bare mooy kere bu yonent bi di gàddaay nit ñëpp nekk mbokkam yëg yooyu mu ñëw na aw bëgg siddiq maa ngi yow ay ànd mu xëm maa ngi ànd rek mu xëm waaye li la ma ca neex mooy bi mu ñëwee ci kër gi fa fekk soxnaam yi toog doom yi toog Abubakar toog mu ñëw Abubakar ne ko yow daawoo ñëw kër kenn heure gi mu ne ko déedéet waaye dafa am mbir mu xew génneel waa kër gi ñu reeñoo mu ne ko ni nga ma yare ba duma netti li nun laa leen yare ba duñ netti li waxal ay bu doon suñ kër yi ñu fore ca waxtaan wa dara waa ji def na jabar ji suba damaa bëgg xëy jabar ja wax ko nogay wax ko sukkay wax ko ayda wax ko biigi biigi ne ko nee ko bu desee place mu ne ko mu ñëw la ba ne ko booy dem ngaay desoo place mu ne ko foo déggee xibaar bi looloo kër yi moo yàq sëy moo yàq diggante yi nu nit for ci xibaar rek yóbbu buñ la laajee nga wax buñ la laajul nga wax Serigne Cheikh Mbacke radiyallahu anhu moo daan toog ci benn place am fa ñeenti waxtu ñeenti waxtu te du wax Serigne Cheikh nee na yàlla ko yàlla yokk wér ñu da Maroc Serigne Cheikh Mbacke ree tàpp ko mu ne ko ah ndeke da ree mu ne ko ku dul ree amut ñi gis say ree bëriwul de mu ne ko Sénégal kenn du fa ree si Cheikh Mbacke wax ko wax ko Cheikh Tidiane kenn du fa